Keman Vision Mungelende dalal ak Keman Vision votre site préféré vous présente Père Père Fall Père. Père man kan est Père Fall Père Père père non Père Qui père Père Père, Père Fall Père, Père Fall xam nga ko. Fall mii ñëw cette dame. ah C'est Fall mii seet ah sa ma papa lan ngeen Pourquoi ah lu xew. yo ça sa papa la. depuis quand. parce que dem ak dem ak Vous Baye Fall daa wax tamit daa sonn ah. lu mu def lu booy yi def. booy ma daje ñoom ci loxo bi rek booy yi def ale tëj tëj tëj. bu ma yàqee agresseur booy yi nguufaa ak doo bi. waaw dafa egg tëj set ma eh, eh, dama toog fi tey eh. nga tëj salaam yi waaw li tawee foofu. waaw booy yi may lomb rek. waaw ma ne booy. waaw da ngaa jublu ma benn yoon ma bu ma ko di damay def fee bu ma daa sali. ma ne ma toog foofu rek daa am heure bu ñuy xaal. waaw ah daa ko ñuy xaal mu woo ñu bu di bu faal. waaw naa naa la. di xaal ma maa ko faal. Oh. faal faal booy bu doomu ale dama këram dama tëj waaw. oh. après. Fane ule filifel. filifel waaw filifel. booy booy toppatoo filifel bu guddi ñëw taxaw. lu yàgg la loolu filifel. ma may booy bu mu def filifel bi a matata noof mu ne leen mu ne jël alak asmi ndili ma nga takk ci. waaw. <laughs> yooyu torture la yooyu amatul yooyu Vietnam la amoon lu tax Fall di la def loolu. fan lañ ko takk. ci islam bi. te mu fekkoon ko takk ci kaw ci boobu ko takk. mooy sama ndey waaye yaa may lay booy bi xëcc xëcc ba fële. waaw oh. booy takk ci ma ma damay toog di xam mooy kilis di kilis booy ji ut ay mat daa koy taal taale fële fee taa booy di ñëw ci ma. maa ngi lay bett moom ay jékki ba daay la booy jékki galaas ci sama ginnaaw. te daay bi te daay ñëw ci ginnaaw tàngul di ñëw ci kanam bu mel ni buy maas. me fonda jama fonda fonda ñaata fonda doo sanga def ci dëgg dëgg gis me fonda jaay ko fonda fonda ñaata fane deux cent ak bu cent fana fot bi na fees tëndimrin pil tëndimrin kil tëndimrin ka tëndimli kil li li tëndimli waaw tëndimli taxa do la pesak gil pesak pesak pesak gil gil gil gil ngalam gul mbax tinja mbax gil mbax gil léegi xam nga mbax mbax gil mbax bul mbax bul bul bëgg doy na gaam kenn du ko yàqee na doy na pin mbax pin mbax pin doy na tëddal doy na doy na fii mooy Kéemaan Vision ndeysaan sa xool ko rek moo ko xool rek sama xel def ci baayam ay waay yaa jàkk li nga def nii yow kan moo niroowul baayam yow yow xaaral loo sa baay. sunoo sa loolu la leen mënoo xatu baam. mën naa nekk de. mënoo xatu yow ki sa tuuma kii. ah xaw ma sama la. kii mooy kañam. kii waaw man xaw ma ko de. xaw ma dama laa xamul sax yow. waaw man jiw ma la ma sax zaal yu mel nii mosuma leen gis si àdduna bi sax. xam naa yow moom wàcc bees nga moom. waaw ñu zaal laas ñu ngi door a wàcc. buñ ma nekkul man bàyyam laa du ma moromam. na mën a ne sax ay ni muy waxee man na ko sànq. yow yaa war a bàyyi tooñ faaw ma koy. sa affaire yi bàyyi wax la nit day am jom. sama saa sa gisoo. mais dama am téléphone. waaw moom xanaa xanaa yoroo yaa ndax gisoo sama saa la te paa bi. na na mu ne paa paa xool ko fii. maa que su ma la dee laaj xamul tax ma lay laaj. pour ndax jaayoo ko wala mu nga ah. saa yu téeméer noo bi ma jaayoon bu ñuul la da sama fas na fas na kay kay yàlla muy ëpp yi day yaa ko fof fofe si néeg bi boo duggee fi ranas fi ranas fi ne ndaa foofu benn chargeur la fa ne te yow yoroo téléphone kon abuma abu chargeur di ko jaay mën naa nekk yi ma abu la oh, fay na fayal amu amu amu xool. allo ça va gis sax ma jënd waat après yow nga nga jaayaat. ah man damay awu jaay kon mooy awu jaay. waaw ah, yow yaa ma gën a xamadi. yow ku réew nga de. yaa ma gën réew. yow su damay tàddeel. waaye fan tàddeel. dama kër bàjjen laay laaj. waaye sama xaw ma kuy sa kër bàjjen. booy mexicain doo nuyoo. fekk ñu fekk ay sama kabaaj doo doo def tànk moo ko la jaaf. jaajëf nga xalaat mi la. waaye ji doomu naa fu mu jógee. kan nga wax doomaraam yow yow kan nga wax laal ma laal ma laal ma. waaye noq de. laal ma yow da ngaa ma noq kenn. ah muy ma sa bu doy bii. kan nga yow pourtant dama da ngaa niroog man. da ngaa niroog man. yow xamu foo jógee waaye da ngaa niroog man. xam nga damaa sonn wër sama bàjjan ba sonn gisuma ko waaye bu ma ko gisee dama naa la wër ci këñ bi ba jàpp la ñëpp soxoon ma eh. xaj. yow yow man. waa li ma parce que dañoo war a utal cité buñ boo dugg ñun suñ bopp comme kaay ñun ñu utul ñoo cité boo xam ne ñun kese la suñ biil yaa de góor ak jigéen ñu ñëpp ñun ñu bokk suñu bokk suñ cité ñun ñun suñ biil kaa comme kaay lesecté ñun ñu lesecté suñu bopp ñun que suñu booyoo si ñu am suñu cité bopp ñun kese ñu nekk fa ah hmm. lépp ñun ñu mën a kaa defa suñu bopp da ngeen bëgg ngeen jabar ñoo takkal suñu biil après nu ngeen di def ba am doom si waaw ah, sëy waaw waaw waaw. Ah, ah, affaire affaire sëy affaire isfindeli na. waaw waaw dëgg la baax. parce que yooyu moom ku amul ñu. jërëjëf amul takkante jërëjëf jërëjëf. dóol jàpp dóol jàpp. waaw waaw jërëjëf nekk jongoma ah. di tukki États-Unis di ñëw. mel ni nga mel. ma ñëw fekk génnoog kenn ba ma ko waxoon damay ki ngay génnal tey laa lay wan ni muus la. gaynde gaa ngi nii. engagé nga de. dégg nga ma. engagé nga ki ngay génnal muus la gaynde gaa nii Mon amour. Bah, Ara. Ça va oh? mhm. ki muy génnal ki muy génnal laa wax. yow. Doucouré ki laa doon sama chéri bi moo nekk nii. yow Adama kii sama. kan. kii Adama. yaa dof rek. kii di sama wóllare boobu booy génn ak moom doomu ko wax. moom dëgg ah! bu yàgg. am na de. Merci de suivre les programmes de Keman Vision.